xam né ne len ci élection locale parce que fi élection locale du fi am waaye nak mbokk ya nga réew kon nak na ngeen len wax ñu jappalé liste Benno Bokk yaakar bobu moy liste bi cautionné euh buma ko waxé nonu nak xamna dana am nous politiqué ndax si tout gox ben autorisé à ñu am fa ñaari parce que dañ doon bañ suñu voix de tassaro way loolu touti gox la ku ci melnu Kolda avons nañ mu nous non ku ci par exemple voilà yi ci des li ci des nag aussi yeneen gox tous bu alors au lieu nga tere Moussa baye dem ba mu dem da nga naan yéen ñaar ñëpp dem leen ku gañ a baax dorom oh, bi du génn gaal gi waaye nag am na ñoo xam ne dañuy mbubboo président te cautionné wu ma leen joxuma leen benn caution voilà loolu lu ñuy leeral la balaa élection yi jot li ci def nag moom Sénégal coow kenn mënu ko fa jëlee coow kenn mënu ko jëlee ci réew mi xëy na loolu noonu lañu yàlla bindee kon ñu nangu ko waaye nañu yokk suñu taxawaay yokk fulla ak fayda nit nag bu la yàlla joxee doole jox la xel danga war a jëfandikoo waaye nga bañ ci gaañ bañ ci gaañee parce que am na ñoo xam boo leen toppee di leen gaañ te du ko jar kon na ngeen continuer seen taxawaay réorganiser waat parti bi parce que amoon ñu xaw a mer suñu biir toog moo andi woon sax nit ñi jàpp ne fii mën nañu wëlbati mbir yi te fii li fi newoon jógu fi tey la wàllu gën a kon maa ngi ñaanaan ñëpp tous les responsables sans exception salut Thioba Dia parce que je l'ai pas fait au début je salue tout le monde salut tout le monde

fóot xol yi àndaat nekk benn liggéey ngir suñu réew jëm kanam. Macky Macky Macky Macky Macky Macky dañoo tiit nee naa leen eh président déglu leen ne président nee na leen nee naa leen na xel yi dal na xel yi bu ngoog nee naa leen laata may jot réew mi sax mënuñu ma xoqatal ginnaaw tey bi nga xam ne yor naa lépp sama. doon na tiit doon na tiit doon na tiit. bilay du du bilay kon. ah. ñun liggéey moo ñu soxal. dëgg la. xeex bi ñuy def mooy pour le développement du Sénégal xeex ngir Sénégal raw ci réewu Afrique yi yàlla ñuy baaxee ñu ngi am de nouvelles ressources pétrole gaz ñu fekk li fi amone

bu desee nag wàllu kujje politique su jotee rek ñu def lu ñu war a def te na muy mujjee mooy la ma waxoon gaañ rek ay bàcc rek ba mu leen naam rek leneen mënu ci am parce que pour le moment jamono ji ñun la yàlla may doole ji te nangoo ko kon na ngeen mobiliser wu nag taxaw xamna élection gox la deug la gox goxaat waye kune sa gox kune sa deuk kune sa commune sa département fexel ba ñu ne wiiw Benno Bokk yakar lolu rek mo ci am solo